waaw nañ ko rafetal rek mm-hmm. wax nga dëgg laay nañ ko rafetal comme ni ñu koy waxee rek waaye laa dañ koy tàbbi ak ki nga xamante ne moom mooy Sanekh laay ah. parce que ni Lamine Ndiaye génnoon na fi def na fi sorti mm-hmm. jëmale kàddu euh, ci moom waaye ñu saat aussi ki nga xamante moom mooy Vieux Ba mm-hmm. te mu bokk fële ci polygame moom itamit yëkkati woon na kàddu jëmal ko si Sanekh daanaka noonu nag la Sanekh génn yëkkati kàddu moom itamit tontu ki nga xamante ne moom mooy Vieux Ba naan ko yow même bu doon tey àdduna bi ñëpp man dañ maa bàyyi yow waroo ci woon a bokk mu ne ko nag wiiri wiiri bi ngay wax ñun Euh, mu ne ko première saison bi daanoon nañ leen fay cent cinquante mille euh, ku ci nekk chaque fin de mois mu ne ko te euh, bi ñu bi ñu demee aussi ba si deuxième saison bi daanoon nañu woon yëkkati ku nekk deux cent mille francs di leen ko jox chaque fin de mois mu ne ko kon foofu man yaakaar naa ni amal ñu leen fa bor après moom sax nag sax yëkkatiwaat na kàddu laa jëmale ko ci ci ba naan ko yow dangaa war a gore mu ne ko parce que dëkk nga suñu ñu nag yow xam nga hébergé nañ la suñu kër pendant quinze ans mu ne ko ba ñu takkal la fa la fa sa ñaari soxna mu ne ko comme yow tey bu yow tey boo doon fekk man ma nekk ma nekkoon sa sàcc da maa war a sàng tey sutura yooyu na nekk kàddu yi nga xamante ne mhm. saa nag yëkkati na ko jëmale ko si ki nga xamante moom mooy vie ba waa xam nga danoo nekk ci milieu bu garaaw muy milieu art dëgg tey am na yu bëri yoo xamante ni li sama père di wax rek nañuy bëggante ñoom si seen biir ñoom artistes yi mhm. nañ bëggante ku ci nekk li nga séq sa morom nga jox ko ko mhm. soit ki yoreel na ko xaalis fayu ko tey mënoon nañ koo defee neneen sutural ko waaye kii tamit fanaan na këram ay ay temps bu bari te it mënoon na koo bañ a wax sutural ko parce que mhm. tey boo suturalul sa morom rek tey keneen ki mun na la bañ a suturaal bu fekkee da ngeen a yem jikko mais li gën a rafet mooy ñu suturaalante hmm. parce que xam ni ñoom ñoo bokkoon soleil levant bu yàgg ñu def fi lu àdduna bi ñëpp teg seen ba tey boo duggee ci internet yi gis ko mais muy mu doon lu rafet bu njëkk mais mu ñaaw quoi ci mujjantel bi yaakaar naa nag hmm. euh, début buy metti yaakaar naa mujjantel bi daa war a neex mais bu début di neex mujjantel bi di metti tey tey ñoom nan xoo nan waxtaan seen biir tey foofu ñoom ay artistes lan nit ñi dañuy xool ci ñoom dañ leen seetaan dañuy bégalaate mhm. te ñoom li nu li nu doon n'importe qui du ko doon ko nekk nit simple moo koy doon muy artiste bu nekk artiste théâtral et donc ñoom ñoo war a rafetal seeni jëfin ñoom artistes yi ñun artistes yi sax ñun ñëpp ñu rafetal suñuy jëfin bëggante ci suñu biir tey di suturaalante tey jii su ma gisee beneen artiste boo xamante ni am na loo xamante ni nii waru ko def ma wala ci suuf wax ak yow mais pas que may toog ci internet yi di la wax mais nag Euh, xëy na tey ñoom ñoo toll foofu si danoo xam naa danoo mer rek mais tey bu nu waxtaanoon dinañ juboo bu nu wooyee xanaa bu nu wooyee Baye Matar dinañ leen jubale <laughs> faa fi nga xam ne moom mooy jubale waate mm-hmm. mais nan ko rafetal ñoom ay artistes la nit ñi dañuy xool ci ñoom daam ñu leen mm-hmm. tey ñi kii daaneel euh, euh, kii ba nu mu tuddati. Vieux Ba Vieux Ba am am na ñoo xamante ni saa neex moo leen di daaneel mhm. tey bu nu ñoom ñaar di xuloo wala ñuy waxante ay affaire ñooñu dan naan kon ñii li liñ doon def dëgguwul quoi maanaam ñu mais mhm. fay naa la deux cent mille fay nga ma cent cinquante mille tey ñoo ko seex mais nan ko rafetal rek xam ne ay artistes lan ñoom ñoo seqoon loolu tey àdduna ñëw ba fii tey nan te seen nan xool si seen bi ko rafetal ko ba mu rafet ñu xam ne ñoo àndoon ñoo bokk tamit dëkk Thiès tey dañ fay ñëw Dakar fii nekk fi di liggéey ku ci nekk nag après ci sa kër ngay dem delluwaat rek mm-hmm. mais nag nan ko rafetal bu baax xam mm-hmm. ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk ndey ñoo bokk baay dëgg la wallaay comme ni nga ko waxee ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay loolu na nekkoon na tontu bi nga xamante ne Sanex def na ko euh, parce que gisoon nañu bi cool yi commencé ba léegi laay moom moom kenn dégg uh, uh, ko woon mais kenn déggul woon tamit ki nga xamante ne ni moom mooy Jojo parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo toogo si seen commun rek boole patt ak organiser laay kenn nangu cee wax <laughs> eh, eh, ñu maandu ci loolu nag laay indi woon na nag ay wax yu bëree bëri parce que lam moo taxoon Sanekh noppi nangul woon na woon wax eh, kii bi Lamine Ndiaye génnee mais moom da dafa xaar ba vie ba génn mu soog cee wax waa xam nga tey tey jii di mën na nit mën ngay wax mën ngay wax ak moom du la tontu mais tey boo boo paree rek mën na la tontu. tey nit dégg li ma waxoon keroog rek da ngay xam li da ngay xam li ngay xam li ngay wax mais bul xam li lay tontu mais maanaam ñoom déggoo li ma wax nan ko rafetal. nan ko rafetal tey tey tey tey tey tey buñ ko rafetalee rek dina baax. Mm-hmm. buñ ko rafetalee rek dina baax xam naa ne papis kat mi ngi lay rey. Mm-hmm. waaye. Mm-hmm. papis nee <laughs> naa xaw ma borom bakkanu kaane gi ah, d'accord am benn problème waaw man loolu ma tegoo ma non non dafa naag kii way ñoom dégguñu ko daf ni waa ji booy bi daf ni yoroo bakkanu kaani xeeñ sóoro indi na problème ci dëkk bi rek daf ni yoroo bakkanu kaani xeeñ a ah, Papis Samba Kanda nee na ma nee na nuyul ma borom bakkanu kaani gi kan sàmm papis papis kan papis kan. non non papis kii du ah, yorul bakkanu kaani hmm. maanaam bakkanam du kaani. dafa ne yoruma bakkanu kaani xeeñ pour nag muy reer nay leer daal Maodo euh, en fait Maodo Maodo xëcc ma parce que man. Maodo euh, man sama bakkan bi moom macha allah taxaw na rafet na. du bakkan bi taxaw na rafet na waaw mais attends quel est le problème lan <laughs> alaaj wala mboqamu tubaab bi de macha allah. gaa yaa a rey ah, macha allah mais yéen a may bëgg a rey. Papis toj na fi de ah. ay waay. baax na daal lii de du ma ko baaxle moom laay. Eh. moom saanara paasara baax ndeysaan. saanara eh, paasara eh. mais nag mais garaaw Papis moom ku baax la. mu mm-hmm. koy bëggee di la di la ñaanal jàmm Papis kan borom baax la. borom baax waaw nekkoon fu am solo. waaw non loolu li ma waxoon rek. Mm-hmm. nanu suturaalante xam ni. Mm-hmm. maanaam lépp ci Sénégal la te ñoom ñaan ñoo boku dëkk suma juumul ñoo bokk Thiès gi ñu dëkk tey mën na rafet ci waa Thiès. si hmm. kaw mu rafet ci ñoom. tey boo xoolee tey ñenn keneen ak keneen nañ génn mais tamit war nañu def attention. Hmm. ñoom artistes yi tey instant bi jamono ji ni ñuy ni ñuy ni ñuy waxalante dafa bari. Hmm. tey dafa ñaaw nan rafetal quoi. ay ci ñu doxal mm, waaw d'accord laay comme ni nga ko rek nañ ko rafetal nee naa leen adduna bi laay euh, dara jarut a xëccoo parce que comme ni nga ko waxee rek laay mm, aar bi yaatu na ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk ndey ñoom ñoo bokk baay mënoon na nañu woon suturante laay mhm. seen i biir ba tax na tey coow li du yegg si woon fi euh, fi nga xamante ne ni moom mooy penc mi waaye laay buñ ci jógee dañuy tàbbi si nga xamante ne mooy Don Diego Don Diego nag moom nag daan na woon a liggéey fi nga xamante ne moom mooy 2STV moom mooy borom biiju biiju biiju biiju biiju <laughs> biiju <laughs> kooku doon jéego mhm. laay moom nag da daa génn nag dal nag ci ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Ndiaye ah. euh, El Hadj Ndiaye nag ñu gën ko xamee si PDG 2STV moom nag nee na El Hadj Ndiaye euh, kooku dakaa bett nee na El Hadj Ndiaye euh, baaxul santul yàlla du samay kàddu nag du samay kàddu nag waaye kàddu ki nga xamante ne moom mooy doon jéego nee na parce que moom liggéey yéen 2STV douze ans ferme nee na benn jour rek El Hadj El Hadj Ndiaye ne ko li mu fi nekk di liggéey yëpp amoo fi sa contrat mu dàq ko ni xaj nee na nee na tey Youssou Ndour moom moo gën fopp ki nga xama xamante ne ni moom mooy El Ndiaye nee na moom tey bu jàppee El Hadj Ndiaye yàlla ak doomu kooku la nee parce que doomu El moom moom xaritam nee na wante bu nekkul woon moom génn na ci ba mu set waaw xam na na na na yi tamit ñi nga xam ne ñooy PDG yi ñi nga xamante ni ñooy liggéey di sonn ci ci ci ci ci mbir yooyu noonu. parce que mhm. liggéey média bi dafa xaw a metti quoi. benn instant mais nag nañ leen di jàppale. mais tamit euh, bu ñu demee ba ci biir tamit nañ leen di signaler contrat. Mhm. di fay loolu tamit day doon lu baax waaye tamit euh, doon jéego doon jéego. surtout douze ans ferme. waaw doon mhm. na xam ni tëj la euh, douze ferme léegi nag moo tax moom tamit mu ne mu ne El Hadj Ndiaye kooku gorewul waaw mais tey mënoon naa woo comme tey mënoon na cee seet doomu mm-hmm. El Hadj Ndiaye bi nekk xaritam mm-hmm. wala mu dem ci doomu El mu ne mu wax mu gis papaam ñu waxtaan ci biir ñu xool noonu koy kiyee mais na xam ne eh, El Hadj Ndiaye la ci benn côté dëgg la waaw te it la doon liggéeyal mm-hmm. waaw xëy na mbir am mais nan ko rafetal xam ne Sénégal la nu ne li may wax rek Sénégal la nu ne génnul Sénégal gi deux mi ngi Sénégal papa El Hadj Ndiaye Sénégal la dëkk waaye doon jéego tamit fii la dëkk mais nan rafetal un jour tamit mun na koo jëlaat mu liggéeyal ko parce que tamit liggéey la fay te muy def lu lu neex ci ci ci ci ci 2S. Mhm. tey mënoon laay nee na moom demoon na sax ba ba moom tey bu mu saan woon a am tey invité. nee na ganam bi sax buy dem moom moo yëkkati si eh, si poosam jox ko ko noonu xaalis ne ko am pàcc nga dem. waaw mais kon euh, parce que musul xaar si ñoom euh, dara. nee na mais euh, lu munti bon bon sax bu fekkante ne atam yi yi mu ko liggéeyal yëpp musu ñëwee loo ko tamit contrat contrat mais tey laay est ce que jaraatul laay nu mu autorité PDG yi. ñuy xoolaat encore seen i bopp. waaw loolu laa wax ni entre ñoom. ñuy ñuy ak seen i ay liggéeykat. waaw waaw loolu laa wax ni pour ñuy ñuy jàppale. Mhm. seen i liggéeykat. Mhm. parce que nit bu lay liggéeyal rek. Mhm. tey mi ngi lay fatal benn côté. Mm. côté boobu mu lay fatal nag yow it fatal ko beneen côté. dëgg la moo tax waykat bi naan fatal ma foofu. Mm. naan fatalante côté yi. pay tey tey doon jéego tey def na ay ay jéego yu yu bëri tey jekk am na xam ne. Euh, doon jéego moo tax ñuy seetaan 2S. Mhm. waaw tey loolu yëpp indil na mën na koo indil indil na ko tamit ay leneen ak leneen loo xamante ni mën peut-être na koo bañ a yëg. mais nag ñuy rafetal PDG yi nañuy rafet nañuy jàppale ñi nga xam ne ñoo leen di liggéeyal euh, ki liggéeyal la pendant 12 ans. ah laay hmm. nga xëy benn bis nga ne ko signalu ma la te dans les normes laay nit ki même bu fekkente ne ni dalaa liggéeyal benn six mois Hmm? bu fekkente ne moom lim lay liggéeyal. yow tey kontaan nga ci. dans les normes donc ko war a signer tey contrat. waaw ah, douze ans de bu fekkente ne mënoo ko signer nga bàyyi ko mu dem. waaw dañuy wax ni du benn weer. Hmm. douze ans moom du du du du du six mois du deux mois. dëgg la te yàgg na. mënoon hmm. naa seet ci yàlla rek sunu papa jàpp ci ndax ku ne xam na ni doon jéego euh, euh, moom mooy borom biiju biiju. mais tamit gars yi des fois. Euh, dañuy dañuy dañuy jékki-jékki rek fipp génn te doo xam lu leen di génne des fois dañuy am fu ñu toll nag mhm. nit boo amee foo toll rek doo ko mën a jooy fenn da nga koy mën a jooy ci média bi mhm. ñuy jàpp ci mais nag sunu papa bu ko mënee jàppale waat mhm. mu xam la te it mu la mu seet ci quoi euh, mu jàppale ko xam ni doomam la tamit jarbaatam la aussi te mi ko doon liggéey te it yàggoon fa douze ans euh, waaw tey dina gën a baax moom nekkul benn jour du benn fan waaw dina gën a baax ci mu koy mu PDG di jàppale ñi nga xam ni mm. ñooy employé yi aussi loolu da siy baax quoi mm. benn instant waaw da baax laay euh, euh, parce que laay te day tax ba borom même tey bu fekkoon te woon ni dafa doon fournir benn cinq pour cent mais laay euh,